ñaar fukk mu di ab lël bu directeur général bu ARTP woo acteur yu nekk ci secteur des postes ngir ñu waxtaanee ni ñuy def ba adapté secteur poste bi ci xarale yu bees yi. waxtaan naka la ñuy fexe euh, ba joxaat euh, gëdd euh, waxtaan pour fexe ba secteur bi am fu mu nekk mu am fu mu jëm ci wàllu jéego. ñu mën cee lim ñaar fukk opérateur yu ne ci secteur bi le gannaaw groupe La Poste bii di société nationale am na yeneen fukk ak juróom-ñeent opérateur privé yi ne ci wàll mi loolu tax ba directeur général bu ARTP fas yéene jël bésub 17 octobre ci at bu ne ñu ciy waxtaane jafe-jafe yi nga xam ne ni moom la secteur bi di jànkonteel euh, bi mooy première édition dañoo fas yéene incha allah at bu nekk euh, am ndaje bu mel ni bokk ko ak acteurs yi ñu poser question yi ñu war a poser euh, seet solution yi ñu ci war a apporter pour que secteur postal bi gën a jëm kanam. acteurs yi nekk ci bile secteur di rafetlu la initiative waaye di ñaax rek autorités yi ñu mën a jëmmal décision yi cay tukkee. lu am solo la vraiment ñu ngi koy ñaanal euh, cette annualisation de sa de la journée du euh, secteur postal mu nekk loo xam ne lu lu la chaque année yàlla may ñu fekke ko te lépp lu ñu ci waxtaanee rek mu nekk loo xam ne dafay jëriñ secteur bi incha mu di réseau distribution de courrier bu gën a rëy ak xëy mu bëre bu muy créer chiffre d'affaires bu industrie postale bu Sénégal di yokk depuis atum 2020 bu ñu sukkandikoo ci directeur général bu ARTP 2020 boobu boobule am na chiffre d'affaires bu toll ci fukk ak ñett million te 2021 fukk ak juróom millions ci atum 2022 nag ñu nemmeeku ci ab chiffre d'affaires bu toll ci fukk ak juróom ñaari millions